ñu amoon amaloon benn rencontre d'évaluation maanaam di càmbar euh, li nga xamante ni résultat yi nga xamante ni moom lañ jëlee ci élection génne euh, mu nekkoon aussi occasion ñu jaajëfal militante ak militant yi nga xamante ni ñoo jàpp ci liggéey bi responsable yi nga xamante ni ñoo nekk ci commune jàpp ci liggéey ba ñu am résultat yu ñu am di sant ñëpp di sant également population Koungheul di sant diaspora également seen taxawaay di sant jeunesse bi di sant étudiants yi la jeunesse étudiante étudiante euh, patriote gis nañ seen taxawaay gis nañ taxawaayu euh, diaspora bi gis nañ également taxawaayu population Koungheul euh, di wax nag euh, jàngat bi def nañ ko étudier nañ bureau de vote ñu gagné étudier également bureau yi nga xam ne moom lañ perdre liñ ci mën a wax mooy li liñ ci gis Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal def nañ percée bu extraordinaire percée boobu nag dañ koy jaajëfal responsable yëpp ci kaw ba ci suuf ñi ñu investir ak ñu investir mais surtout ne moo coordinateur euh, euh, Babacar Ndiaye bi nga xamante ni moo yor coalition Yewwi Askan Wi ak Diafara Sadi Fofana bi nga xam ne moo yor euh, Wallu Sénégal seen taxawaay ak seen liggéey gàcc ngalaama ndax peccum lu bu neexee nday jaa jàpp ci mbag yam di wax également que ne résultat yi li mu firndeel mooy askanu Koungheul ñoo bëgg changement résultat li mu firndeel mooy rupture moo commencé am biir Koungheul ndax dañoo nekk ci dañoo nekk ci département boo xam ne euh, bu ñuy wax ci gouvernement am nañ ci ay représentants am nañ ci ay responsables yoo xamante ni ñii ministre lañ ñii DG mais terewul tey la Koungheul gën a sonn tey lañ gën a am ndox bu bon tey lañ gën a ñàkk ndox tey lañ gën a am problème yoon tey lañ gën a am problème faju borom faju fajukaay tey la mbay bi gën a sooxe baykat dañoo laajte kaaf ci engrais dañoo laajte kaaf ci ñàkk ci bu baax ak yeneen i yoo xam ne ñu ngi koy jànkuwanteel loolu nag bu fekkee dafa am ci département boobu day jot wala bokk occasion la pour que population bi euh, wane seen métit mais aussi wane seen taxawaay ci li nga xamante ni moo fi am loolu moo tax euh, yooyu askan wi ak wallu Sénégal seen campagne bi ñu def ak travail bi ñu def tey ñu am euh, wax dëgg yàlla un vote massif ci monde rural bi comme ci biir kopp ci biir dëkk bi bu leen jàngat boo xam ne aussi mën nañ ko ci def mooy faw waa góor bële waa Benno Bokk Yaakaar wala boog ñàkk jàmm dañoo doyal ci ñoom ndax seen i xiroo seen i ŋaayoo ak seen jaay doole tey euh, Koungheul bu ñu ko bëgg a yaakaar naa jërul xiroo jërul ñaa jërul ŋaayoo te nag mu ngi interpellé directement l'autorité administrative li xew ci campagne bi dañ ca war a ubbi enquête ci biir meeting politique bal di tàkk te dañu interdire ko ñu gis arrêté ministère bi ko interdire loolu dafa war am suite warul yem noonu dañuy interpellé directement les autorités concernées mais di wax ne euh, euh, waa Yewwi ak waa Wallu lëkkal nañ seen doole te fas nañ yéen taxaw dégg nañ nag yenn bojo bojo yi di wax ne euh, euh, mbir mi dafa am ñu ci jàpp ci ci benn ci benn bokk yaakaar ñu koy démentir formellement di wax ne résultat yi ñu am ndaw ñu ngeen gis nii ak paa yi ngeen gis ak maire yi ngeen gis ñu taxaw ñoo ko liggéey dans tous les coins et recoins du département kenn joxul leen ñaar dërëm au contraire population bi ñooy cotiser di financer seen campagne ñooy cotiser di financer seen seen déplacement ñooy cotiser di financer seen mobilisation donc xam ne liñ ci am comme résultat xeeb nañ ko sax ndax bu nekk loolu ñoom millions ñu génnee jox ko askan bi achat de conscience bi bon ñoom du ñu am sax pour cent bu ñu amee ñoom tey 52 pour cent au détriment de l' nañu xam ne leen ko mooy moo achat de conscience seen leader politique wala seen responsable politique war na ko xam mooy mooy Macky Sall leen yebal war na xam ne seen lieutenant yi mu am Koungheul dañ koo décevoir ndax le maire en personne dañ dañ ko doubler bureau de vote bi mu bureau de vote bi mu voté donc loolu lan la tekki mooy que y a des responsables y a des jeunes a des femmes y a des hommes qui sont engagés yoo xam ne déterminés nañ pour incha allah jël Koungheul teg ko ci loxo yu baax ndax wax dëgg yàlla population bi sonn nañ waaw euh, waxtaan nañ ci léegi euh, ci ci lu jëm ci dynamique euh, bi ñu nekk. Euh, di wax ne jotaguñ benn notification bu intercoalition par rapport à ça mais ñi ngi cee liggéey ñi ngi def travail d'ensemble et dans quelques jours incha allah dañ jëlewaat euh, pour xool ban stratégie la jël mais en tout cas que l'on sache que euh, Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal dañu présenter liste incha ci la bàyyi loolu politique la ñoom nañ décroché élément ci ñun ñun noonu lañ décroché élément ci ñoom donc loolu moom c'est naturel donc kenn ku ne mën nga àndal nit nga dem ba yow fi nga nekk sentir sa sañ nañoo yóbbante ñun suñu bëgg-bëgg mooy que ànd bi na dem parce que wax naa ko sànq si biir si biir réunion bi nee nañ pour le moment ñun jotaguñu consigne bu leer par rapport ak élection au conseil yi ndax dañuy dem bannière intercoalition wala yéewi kese mais tàllal nañ loxo waaye wala yu fi nekk pour ñu lëkkale suñu doole mën a dem ci élection boobu donc même bi am nañu ko te jàpp nañ ñi ne ci kaw bu ñu saytoo étudier war nañoo mën a def le même parcours pour que wax dëgg yàlla li ñu bëgg santaan politique la rek <laughs> ci def taxaw seetlu jël beneen yoon mais ñun liñ jël ci ñoom ñoom jëluñ sax un cinquième waaw macha allah gis nañ ci avancement mais comme ni ko mbooloo mi waxee sànq on est satisfait mais on n'est pas totalement content sant nañ li ñu am mais nag doylaguñu ndax li ñu bëgg mooy département Koungheul nekk ci suñu loxo te incha allah ci loolu la ñuy liggéey euh, donc di wax ne euh, euh, bu ñu defee jàngat bi Pastef wala boog Sonko 2024 bi mu deux mille deux mille dix neuf du moins bi mu demee élection. amuñu woon euh, li ñu am tey on avait cinq cent quelques dans la commune euh, yàlla def ñu demaat élection am ci ci présidentielle yi ñu génn am plus de mille euh, ci locales yi ñu génn du moins am plus de mille quatre cent voix dans la commune de Koungheul tey ñu am quelques voix dans la commune de Koungheul lu mu tekki mooy que mbir maa ngi dox te bu ñu jëlee benn diagnostic général également ñu gis ne élection yi ñu génn boo jëlee Yewwi totalisé wa Yewwi totalisé cinq mille cinq kon en principe war nañu am 9000 voix ci élection yi passé bu gàtte bu gàtt mais gis ngeen li li yàlla def ak liggéey bi nga xam ne def nañ ko ba tey ñu taxaw ci plus de 12000 voix loolu sax damay jàpp ne idée bu ñu construire la rek opposition yi wala boog suñuy adversaire ñoo construire ci bopp nit ñi na xamuñ diw parce que dañoo jàpp ne pour nga xam diw foofu moom mu jaar ñoom fi ñu jaar te ñun dañ leen ñoom seen jaar-jaar ndax am nay détourneur am nay sàcc am nay donc ñoom fi ñu jaar ba ñu xam na ñun soxluñu jaar foofu benn ñaar bu fekkee aussi dañoo ñëw ci ci wàllu parcours politique ñun jàpp nañ ne suñu taxawaay euh, euh, du taxawaayu El Hadj Guèye wala taxawaayu Babacar Ndiaye wala taxawaayu Fatoumata Diallo wala Diafar Fofana wala Lamine Guèye wala keneen déedéet mais taxawaayu lieutenant yi ne ci commune yëpp la di liggéey pour euh, pour Yewwi Askan Wi wala bopp pour Sénégal donc loolu moo nekk force force force coalition wala intercoalition Yewwi Askan te ñoom xamuñu ko. mooy sensu caravane ci ci élection. caravane nationale bi dafa dafa jóg pour dooleel candidat yi caravane bi dafa jóg pour dooleel candidat yi donc bu ñëwee fii dina fi joué lu am solo te lu am solo fi joué mooy caravane Yewwi mooy caravane Wallu bi ndax yéen ñëpp gis ngeen mobilisation dañ ko couvrir en live donc loolu moom euh, Daouda c'est une excellente chose euh, contribuer na bu baax a baax a baax te bu ñu ko amoon sax ci local yi passé ngay xam ne am na solo bu baax a baax bon avenir bi déjà mooy constituer euh, benn force bu crédible ak bu am proposition yu baax au niveau de l'Assemblée te jàpp nañ ne base su ñu jotee gum depuis résultat yi génn ba léegi euh, danañ taxaw taxawaay bu mat sëkk euh, député yeew yi comme député wàllu yi danañ boole seen doole ba wax dëgg yàlla li nga xamante ni mooy bëgg-bëggu doomu aadama yi bëgg-bëggu Sénégal ñu mën cee taxaw réorienter priorité nga xamante ni tey Macky Sall jàpp na ay stade la jàpp na ne ay yoon yu mu war a yoon yu war a yemal Dakar la jàpp na ne ay piscine yu mu war a def Dakar la tey faw ñun suñuy député ñu yebal tey am nañ ci ñoom confiance gëm nañ leen ñu taxaw poser le vrai débat au niveau ñu mën a jël xaalis réew mi def ko ci wàllu paj bi def ko ci wàllu yoon yu bon yi def ko ci ñàkk courant bi mais def ko ci mbay bi bu kenn ku ne mën ci gis boppam sañ nañoo yóbbante ñun suñu bëgg-bëgg mooy que ànd bi na dem parce wax naa ko sànq si biir si biir réunion pour le moment ñun jotaguñu consigne bu leer par rapport ak élection au conseil yi ndax dañuy dem bannière intercoalition wala yéewi kese mais tàllal nañ loxo waaye wala yu fi nekk pour ñu lëkkale suñu doole mën a dem ci élection boobu donc même bi am nañu ko te jàpp nañ ñi ne ci kaw bu ñu saytoo étudier war nañoo mën a def le même pour